sant sëñ bu baax kon nag dama bëgg ñëpp ñu ànd sant sëñ bi jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jaroo lakk maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf maa ngi nuyu mbokk yëpp di jiital nuyu bi sëñ abdu Akim bi nga xam ni moom mooy nekk darajaal jataay bi jël nuyoo bi mu tegal ñu ko ci loxo sëñ Muntaxa di ko ya di ko ñaan yàlla suñu borom yàggal ko lool jël nuyu di di ko teg ci loxo sëñ sëriñ sëñ alaaju di sëñ waajur di jël ñu ko soxal sëñ musaa jël nuyoo bi encore joxal ñu ko sëñ sang yu baax yi yëpp tey toog fii tey ñëw fii bàyyi seen yite yëpp ngir sagal ñu ci bis bi di encore di nuyu tamit di nduyu encore di nuyu sëñ imam imam Maxtaar imam di ko ñaanal yàlla yàlla dëgëral ko yàlla kattanal ko yàlla dooleel ko ci liggéey bi nga xam ni sëñ bi dénk na ko imam kontaan nañ coow trop di nuyu nag ñëpp di nduyu tamit sëñ Moustapha di ko sant ndax day ni léegi na jël parole mu ne maire du ma jël parole yow yàlla la fi teg def la nga nekk maire soo waxee ñu ñëpp wax nañ loolu lan lay junj tey lay junj ni moom mii de taalibe képp la ndax soow weex weex mu am solo ëppaate bi amul njariñ maa moom mi ay taalibe képp la te leneen duñ doon leneen lu di taalibe nag te loolu moo ñu gënal lu ñu yor tey DG la waaye tey ko xool xamoon ni DG fi toog tey ku ñu xool ñun ñii xamoon ni député fi toog de tey ku ñu xool ñun ñii xamoon ni meeru dëkk bi nga xam ni tey amoon na bis moo doon oo sëñ bi naan nañ ko indi fii buñ ko indi dëkku péew la ñu taalibe yépp bu ñu ko toppee ak neexaay dëkk bi yu bari na yàqu tey kookee oo woon ko naan ko bul def jàkka ji fii bul def jumaa ji mu yilifoon dëkk bépp takkoon xàpp gi tey kooku moo toog rëpp ci suuf sëñ bi xam ni sëñ bi am na ndam ci tubaab jërëjëf sëñ Tuuba kon dinañ xam ni mbubb yi ñu sol amul benn njariñ fii rek la yem taalibe rek ma am solo ndax dinaa am bis ñu yeew loxo yi yow tànki tëral la ana ja ana mbubb ya ana pal ya sëñ boobu nag taalibe rek ay taxaw sëñ Tuubaa rek ay taxaw yàlla nañ yàlla rey ci taalibe li ñu def mbokk taalibe yi suba ba tey di sant sëñ Tuubaa mi nga xam ne depuis 1921 ba 22 mu sant kontaan lool oo mbokk taalibe yëpp fii ci njaareem mu ne leen ma sant le ne leen ma sant la sunu borom fii la ko waxee woon ci bàkk bu tëdd bii kon tey bis boobu bu ñëwee daaw ba ren at yi fukkeel at ci ren seen seex jërëjëf njaag ñu nga àndal tey def ngeen lépp li ngay liggéey bi yore jikko taalibe kenn ci yéen jéemu cee feeñ jéemoo leen sax wax yàlla leen yàlla fay ngeen organiser ko tey jii ñun ñëpp ñu xool la sëñ ba waxoon ñu commencé bis bi tey jii muy premier safar waa njaaram yëpp génn di sant sëñ bi di ko sant ba ñëpp diñ ci roy kon yéen jërëjëf mbokk taalibe yi kenn amul seen fay man mii nga xam ne may meeru njaareem di meeru dëkk bi man de duma dolli di sant sëñ Touba ndax maa gënti ci àdduna bi ndax meeru njaareem fi sëñ Touba def 15 ans jël jumaam ji xot tegal ko boppam posel ko julli ci jël jël armeelam yi defar ko ni képp ku fi xëye fanaane xëye képp ku fi képp ku fi yendu fanaani àjjana ma nekk ma nekk meeru dëkk boobee nekk gën ci meer yëpp kon man sëñ Touba man xaw ma ku warta sant sëñ Touba man Malick Fall war naa sant sëñ Touba ndax li ma nekk yombul de meer yomb na waaye meeru njaarim de yombul jërëjëf sëñ Touba di seen sant ñëpp te bis bii nag nañ ko téye fonk ko barke borom Touba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen jox kenn ku ci nekk wàccuwaay wa yell ci moom di jiital ci nuyoo bi xalifatul xam li taifatul muridiya Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu gën a guddal aw fanam te gën wéral ay cëram ba mbooleem naali Serigne Touba yi mu fekk magam yu baax yi ak kilifaam yu baax yi naal ko mu àggale ko te ànd ko taalibe yi naka noonu lañ koy ñaanale mbooleem kilifa yi nekk ci biir réew mi tey taxawu lislaam yi di ziyaare kilifa yi nga xamante ne ñoom lañ nekkal ci jataay bi suñu tuddee Cheikh Abdoul Hakim Mbacké mu yóbbaale ñeneen ñëpp ñuy ziyaare mbooleem ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa di waa kuréelu safinatul amaan di am yéene yëkkati kàddu boo xamante ne ni suñu kàddu jëwriñ la muy Serigne Bassirou Amar nekk coordonnateur international bu kuréelu Sarsara yaatal liggéeyu Serigne Touba fële ca gànnaar loolu nag ñu amee ndigal li ci Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada mu jotee ndigal li ci kilifaam yu baax ya ca diir ba fi Serigne Salif Mbacke nekkee ba sunu jonn yàlla tey képp ku fi ñëw rek daal di feddaliwaat ndigal loolee mu jox ñu ci aw làcc wu rëy a muy ñu fas yéene liggéey boobu noonu yaatal ko ci mbooleem àdduna wante yaatal ko ci mbooleem fu taalibi Serigne Touba nekk ba ñu xam béréb booba di Sarsara ndax bari na lu ñu daan wax Sarsara fii ci biir réew mi ñu yaakaar na Sarsara gii ci Daaru Muxti la wante du googa Sarsara gànnaar la te ku nekk bi mu ñibbisee daf ne liggéey bi de gamoo la woon wante fay gi moo di gànnaar fay googee di gànnaar Serigne Touba nekkoon ci ay béréb yu fasantikoo foofee ca gànnaar nekkoon fu ñuy wax xumaag tund moxsin jaraar yi ak feneen ak feneen wante béréb boobu di sarsaara doon béréb bu ca gën a ràññeeku doon bërëb bu ca gën a siiw doon bërëb bu ca ëpp bayre la ko waral mooy li jëwriñ ji junj sànq mu wax ko fa muy indi inna lazina ila sarsaara xad xasadu ziyaarati faaraxu daarayni aw zaara fii di sarsaara képp ku ma fi fekk ziyaare ma suñu borom jéggal la say bakkar àdduna ak allaaxira nee nañ am nañ bis benn kilifa di def benn waxtaan ba daal firi bayit yooyu sëriñ Abdou Lahad Mbacke woolu ko ne ko damaa bëgg nga firil ma bayit sëñ Tuubaa yooyu muy waxee foofa de sarsaara ku ma fekk suñu borom jéggal la àdduna ak allaaxira mu ne ko ndax am naa ndigalul ñime naa toog ci kanamu njabootu sëñ Tuubaa di firi bayit sëñ Tuubaa mu ne ko am nga ci ndigal mu firi xam nañ kilifa ga dañuy bañ a guddal ba mu ko firee daal di wax na max naa ma tëddee sëriñ bi xamal ko ne ko loolu dey doonul diir ba fa sëriñ bi nekkee waaye ba fii ba àdduna àddunay tukki képp ko fa teg sa tànk rek dugg nga ci biir bayit boobu ne inna la zina ila sarsaarafat xasado ziyaarati farqu daare ni aw zaara ñu jot ndigal ci sëñ siid yi ba bu yàggul rek dem nañ ziyaar ji sëriñ mun Muntaxa Mbàkke ñu ko gaaralee liggéey bi ak ndigal yi ñu ci am ak objectif yi nekk ci suñu kanam mu ñaanalaat ñu ci feddaliwaat ndigal yi xamal ñu ne na ngeen ci dox te yaatal ko te xam ne da ci am ndam liggéey boobu nag ñu ci woo ñëpp wante ànd ko waa ak waa safinatul amaan ak waa kuréelu première safar fii ci njaareem daaw teew nañ fi ànd ak ñoom liggéey bi teewaat fi ren di ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala mu may ñu ñu teew fi ay at yu bare bisub sëriñ bu mag bi gaa yi jub si na waajal ko jot na sëkk ndax moom yegg na fukki fan ak juróom ñett ci biir safar mooy bés bu mag boobee waral ñëppi safar ay yastamin allahu inda jeewali iblis id naadaytuhu bi yaa wali asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Serigne Touba alhamdulilahi rabbil alamin sant suñu borom ginnaaw bu ñu mayaate ñu fekkee weeru tedd yi nga xam ne moo di weeru safar safar di weeru yi nga xam ne moo ëmb bis bu màgg boobu nga xam ne moo di màggal tubaa fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar ngir jëm si waajtaay wi nag mboolem seen activité safar yi nga xam ne di ngeen ko amal seen i ak seen i ak mboolem safar yi nga xam ne di ngeen ko amal seen gox ak seen i gox-goxaan seen seen YouTube Tawfekh Production di leen si gunge lépp jëm si waajtaayub màggal ak Tuubaa gi nga xam ne moom la ñu dëgmal moo xam ay reportage couverture médiatique ak mboolem activité yi nga xam ne moom ngeen def yépp Tawfekh Production nee leen si gunge ngir ànd ak yéen nu mu gën a muccee ayib ku si gën a bëgg ay leeral nag mën ngaa woote si numéro yi 77 251 04 05 77 251 04 05